waj'alhu zakiran wa shakiran abad waj'al kalami rashidan wa murshida wa fikrati nawwir wa qalbi arshida ok asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu ñoo ngi leen di nuyu te di leen ziyaara di leen ndokkeel di leen balu ak te di leen baal di ñaan suñu borom subhanahu wa taala mu boole ñu jéggal ni ñu ko baaxoo àndi ak ci ay bis bu jot ci suñu jotaay xam-xam yi ñuy baaxoo ànd ak yéen te ciy fàtt leen teendoo ak yéen lenn ci mbindum sëriñ bi radiallahu anhu suñu jotaay yooyu la ñuy woyal ak yéen rek di bëgg a sof fi ñu bàyyee woon fi ñu wàcce woon suñu kàddu ci bind bi weesu te mooy ci bayit bi nga xam ne sëriñ bi radiallahu anhu ma nga ñu fay wax naan suñu wattu gi nga xam ne moom lañ war a wattu aw làmmeñ ci lépp loo xam ne ñaawteef la loolu warteef la woo xam ne suñu borom bi subhanahu wa la moo ko waral ci ñun kon suñu borom dafa bind aw làmmeñ waaye bi mu bindee làmmeñu doomu aadama itam daf ko sant mu war a moytandiku lépp loo xam ne ñaawteef la mu ko ciy tudd mooy bayit boobu ci lañ taxawoon keroog ci la sëriñ bi de wax naan wa xifzunal min faxsaa yi awjabahul jabbaaru zu samaa'i sëriñ bi di continuer rek ci li nga xam ne moom lañu war a wattu ci aw làmmiñ ba tey mu ne wa min xabaa'ixil ak ki aji ñaawi wax maanaam wax ju ñaaw wal yamini ak ngiñ bilarqi ci goréel wattalaaxi ak fase oha nanga leen wattu ñoom ñëpp ajmaina boole seen sëriñ bi radiallahu anhu ne na bokk na ci li ñu war a wattu ci aw làmmiñ mooy wax ju ñaaw wax ju ñaaw wax ñaaw bokk na ci di tudd nit ki euh, di ko tudde loo xam ne euh, lu baaxul la di tudd ay jukkom yu bon wala ngay jëw nit ki wala ngay wax loo xam ne amut yooyu yëpp wax ju ñaaw la joo xam ne dañ cee war a moytandiku aw làmmiñ wal yamini ak ngiñ niki noonu tamit giñ ci fase ak goreel ñaar yooyu yëpp ay wax la yoo xam ne amul njariñ te it lislaam daf koy tere moo taxit dañ ko war a wattu kon goreel ba nga xam jamono yi nga xam ne jaam dafa amoon buñ daan goreel ñi nga xam ne ñoo daan goreel seen jaam yi léeg-léeg dañ daan goreel di giñ ci goreel ga goreel ka ñuy goreel waaye itam dañ daan fase di giñ ci fase yooyu yëpp nag lislaam dañu koo tere waaye lislaam dañu koo aaye bokk na ci yi nga xam ne war nañ cee wattu aw làmmiñ war nañ cee wattu aw làmmiñ waaye itam war nañoo wattu aw làmmiñ ci e, tuddu lépp loo xam ne awra la ci moom waaye lépp loo xam ne ayib la ci doomu aadama yooyu yëpp ay ñaawteef la yoo xam ne nit ki waru koy e, tudd ci aw làmmiñam waaye ay mbir la yoo xam ne lislaam dañoo aaye ñu tudd ko te boo demee ci Munawwirus Sudur sëriñ bi radiyallahu anhu ma nga fay leeral ni nga xam ne noonu lañ war a wattoo aw làmmiñ waaye li nga xam ne moom lañ war a jëf ci aw làmmiñ sëriñ bi radiyallahu anhu ma nga ñu koy leeral foofu euh, li ñu fa war a jëf sëriñ bi radiyallahu anhu ne na aw làmmiñ de li nga xam ne moo ci mën a jëriñ doomu aadama bi rek moom la ci war a jëf boo demee ci bunt ba muy wax faslun fi lisaan maa ngi fay wax naa laazim sukurallahi bil lisaani wa xaabil lixsaana bil ixsaani nee na na nga taxoo tudd yàlla ci saw làmmiñ te nga jàkkaar loole jëf ju rafet ci jëf ju rafet maanaam te nga ci wax wax ju rafet joo xam ne mën na laa jariñ am na yeneen yu bëree bëri yoo xam ne andina ko ci bunt boobu ci yi nga xam ne noonu lañ war a dundalee aw làmmiñ ni nga xam ne noonu lañ war a jëflante ak aw làmmiñ waaye yi nga xam ne moo ñu mën a jariñ ci suñu aw làmmiñ waaye itam ni mu ko leerale foofu li ñu ci war a jëfandikoo noonu itam lañu ñu leerale ni ñu ko war a moytandikoo ba duñu dugal ci pakk duñu dugal ci pakk ndax euh, boo demee ci euh, na ju ma nga fay wax naa laa taltamis min uyubi nnaasi ma sataru fa yahtika allahu sitran an masawika nee na ayibi nit ñi nga xam ne dafa nëbbu nee na bul ko sàkkoo luñ ñutu ngir xam ko nee na loolu de boo ko defee yàlla dina uh, xawi sa sutura waaye yàlla dana uh, xotti sa sutura waaye yàlla dana feeñal say ñaawteef kon loolu moo tax nit ki war a fexe ba lépp lu muy tudd ci aw làmmiñam lu baax lay doon waaye na fexe ba làmmiñam du tudd ayibi doomu aadama waaye na fexe ba làmmiñam ñoŋ ni muy ñoŋe nag mooy lan mu fexe di taqoo tudd yàlla waaye di Euh, def ay istighfar ak i salawaat ala nabi ak yépp yoo xam ne mën naa tax euh, euh, sa tuyaaba yokk waaye lépp loo xam ne mën na laa jëriñ nga saxale ko soo làmmiñ mu ne wa xifzukum seenu wattu basarakum seenu gis minal xaraami ci li araam aw jabahu waral na ko aleykum ci yéen rabbul anaami borom bindee fii wan zajiru na ngeen jàjju an nasrin ci xool li muslimin jëm ñeel ab jullit bi nazaratin ci ab xool tu ziihi boob dana ca loroo duuna mujrimin lu dut ab kàccoor nee na bokk na ci yi ngeen war a wattu mooy na ngeen wattu seen xool yi maanaam seen bët yi na ngeen ko sàmm di xool ci seen bët yi li nga xam ne moom ngeen ci war a xool waaye na ngeen ci wattoo xool loo xam ne suñu borom subhanahu wa taala daf koo araam daf koo araamal ndax loolu suñu borom subhanahu wa taala dafa waral ci jullit bi Euh, euh, mu wattu bëtam waaye wattu ko ci lan ci lépp loo xam ne moom suñu borom subhanahu wa taala daf ko araamal bokk na ci yi nga xam ne moom la suñu borom subhanahu wa taala araamal mooy xool ab jàmbur jigéen boo xam ne euh, lislaam daganulu la nga xool jëme ci moom kon ak xool ayibi nit di ko tudd wala ngay xool nit di ko reetaan wala nga koy xeeb yooyu yëpp lislaam daf koy aaye kon ne na seen bët yi bu leen ci xool ayibi nit waaye bu leen ci xool nit ngir xeeb ko waaye bu leen ci xool lenn ni doomu aadama euh, te euh, loola suñu borom subhanahu wa taala araamal ko nee na na ngeen jàjj itam ci euh, xool lépp loo xam ne xool boo xam ne da koy jëmale ci ab jullit te xool la boo xam ne lor ko rek nga ci jublu maanaam xool ab jullit xool boo xam ne xoolub mbañeel la wala nga xool ko xoolub Euh, euh, bëgg bëgg euh, mbiram yàqu la wala yooyu yëpp dañ koy xool ab jullit te yooyu yëpp lu suñu borom subhanahu wa taala araamal moo tax suñu borom doon wax naan waylun li kulli lu lumaza xool yu mel noonu suñu borom bi subhanahu wa taala daf koo araamal lu dul ne na xool boobu da nga koo jëmale ci ab kàccoor boo xam ne day day day doyadal diine waaye day xeet diine nga xool ko xool boo xam ne daf koy lor ngir lan ngir ak àq lislaam rek tax waaye diine ji muy doye daf rek tax waaye su fekkee ne loolu taxul nag moom amu euh, julit bi amul droit xool benn moroomub jullitam wala benn doomu aadama xool boo xam ne euh, doomu aadama mën na caa loroo kon loolu itam ñu war koo bàyyi xel bu baax a baax kon ni ñuy sàmmee euh, aw làmmeñ ki mu wax aw ñaawteef noonu la ñuy sàmmee li nga xam ne mooy ay gët ba mu war a bañ a xool li nga xam ne moo di euh, ay euh, ñaawteef moo tax sëriñ bi doon wax ca Munawwir ba tey bunt ba nga xam ne moom la jagleel euh, ay gët mooy wax ne bil ayni la tanzur li shay'in haruma bal guddaha anhu takun muhtarama nee na sa bëri de bul ci xool lenn loo xam ne suñu borom bi subhanahu wa taala daf koo araama nee na na nga ko dam na nga ko damm ci lépp loo xam ne suñ borom subhaanahu wa taala daf ko araamal na nga damm sa gis bi ba bul xool jëme ca dina loolu de boo ko defee di nga nekk ku nu moo mu toftal ci ay bayit yu bari nag yoo xam ne euh, la mu cay leeral rek mooy ñi nga xam ne noonu lañ war a jëfandikoo ay gët waaye njariñ li nga xam ne moom lañ ci mën a amee su fekkee ne jëfandikoo nañ ko ci li suñu borom bi subhaanahu wa taala digal boo demee ci Euh, nax ju ba tey mi ngi fay wax naa wa in absarat aynaaka ayban fa qul wala tanturi ya aynu linnaasi ayuna dana ko sa yow so sama mbokk sa bët yi de saa xamee ne xool na ayibi nit na nga sëgg damm euh, gis ba nga ko gis sëgg ci suuf mel ni ku réccu la nga gis ayibi nit kooka wax ko ne ko yow mii soo bët yi de bul xool bi nit ñi ndax ni nit ñi amee ay ayib man mii noonu laa amee ay ayib te ni ma amee ay bët ba ngay xool ayibi nit ñi noona itam la nit ñi ame euh, ay gët yoo xam ne man nañ cee xool sama ayib kon looloo tax mu ne ko yow soo bul xool bët ayibi nit ñi ndax ni nga mën a xoole ayibi nit ñi noonu la nit ñi itam mën a xoole samay ayib Euh, kon loolu moo tax nit ki war sàmm bu baax a baax ay bëtam ci lépp loo xam ne euh, euh, xool ay bi doomu aadama la wala lépp loo xam ne daf ko mën a réyee doomu aadama moo tax suñu borom subhanahu wa taala di wax yonente bi ne ko qul lil muminina yaxuddu min absarihim wa yaxfazu furujahum waxal jullit ñi waxal way gëm yàlla nañ damm seeni gis te sàmm seen seen seen seen pay loolu ndigal la loo xam ne ci suñu borom subhanahu wa taala la jóge bàyyi koo ko waaye ñu war koo sàmmonte bu baax a baax war koo bàyyi xel bu baax a baax a baax kon euh, wattu ay bët xool lenn loo xam ne dafa araam wala xool ay bi nit loolu suñu borom subhanahu wa taala daf koo waral ni nga xam ne noonu la warale nit ki di xool moroomu jullitam xool boo xam ne lor ko la ci jublu euh, lu dul ne ab yéefar wala koo xam ne euh, li tax nga xool ko xool bu koy lor lenn rek moo tax mooy kàccoore gi mu ak bañ gi mu bañ lislaam ak euh, doyadal gi muy doyadal lislaam bu boobaa moom kooka lislaam du la ci topp dara waaye nag bu dee ab jullit moom amoo euh, warteefu maanaam amoo droit xool ko xool boo xam ne daf ko mën a yóbbee loraange moo tax mu ne fa innahu naka moom aleykum war na ci yéen fii ma sharia ca lañu sariya yoonal hijraanuhu mooy ak tongoom nasihatan ngir laabire li yartadix ngir mu jajj ngir mu jajju na bu fekkee ne xool boobu ngay xool ci ab yéefar wala ab kàccoor nga ko jëmale nee na loolu bokk na ci li nga xam ne moom lañ yoonal maanaam bokk na ci li nga xam ne moom la lislaam yoonal nga xool ab yéef ab kàccoor wala ab yéefar nga xool ko xool boo xam ne daf koy lor xool ko di ko lummartiku wala yu demee noonu mel ni uh, koo bañ la te li tax nga def ko ak lislaam rek moo tax waaye dem na sax ba ci boo ko waree tongu sax bañ a waxanteeg moom ngir laa biire ko ngir mu jàjju ba dellu si ci lislaam loolu lépp uh, lislaam daf ko santaane waaye loolu lépp lislaam daf koo bàyyiloo xel ki nga xam ne mooy julit bi kon ki nga xam ne moo di ab kàccoor rek moom nga sañ a def jëflanteel ci anam googu waaye ki nga xam ne moom ab jullit la lislaam mayu la benn yoon ngay jëflante ak moom ci anam gu mel noonu mu ne wal taxzaru na ngeen wattu soxbata faasixi soxbata kulli faasixin àndaale képp bépp way kàccoor is ngir zaaka loolu xayru laiqin déet muy yàlla bil muridi ci taalibe bi dina na ngeen wattandiku di ànd ak way kàccoor way bon na ngeen moytandiku di ànd ak moom am naa fekk na ngeen di moytandiku di ànd ak moom ab faasix koo xam ne day def ay ñaawteef na ngeen moytandiku di ànd ak moom ndax loolu yellut ci ab taalibe muy ànd ak koo xam ne euh, day def ay ñaawteef te di ko fésal waaye yellut ci ab taalibe muy ànd ak koo xam ne ab kàccoor la euh, ci ay cëram daf ciy def ay ñaawteef loolu moom lañu sëriñ bi doon waxaal euh, ci nax ju tey ne wala tusaaxib in aratta soxba za safahin aw xasadin aw raxba jikko yooyu yëpp baaxut koo gis mu yor ko na nga ko moytandiku bu baax a baax nee na su fekkee ne da bëgg ab àndaale de bul ànd ak koo xam ne dafa dese wala mu soxot wala mu nekk boroomu xemmam àdduna wala mu nekk borom boroomu xemmam àdduna kon ñooñu ñëpp sëriñ bi radiyallahu anhu nee nañu bu àndaale ak ñoom waxaan ñu tamit ne falaatu saaxib axaa jahlin wa iyaaka wa iyaahu fa kam min jaahilin arda xaliman xiina waaqaahu ne na bul ànd ak aji bul ànd ak aji maa ngi lay dénk te di ko dénk ndax bari ko ànd ak aji réer aji réer ja dana alku waaye day alku ba pare alagaale ko moom ci wàllu boppam kon looloo tax sëriñ bi radiyallahu anhu di ñu aaye ñu ànd ak euh, koo xam ne euh, du suñu àndandoo waaye koo xam ne bokkuñu ay jëmuwaay waaye mu ñuy tere ñuy ànd koo xam ne ab kàccoor la walla euh, li nga xam ne mooy lislaam daf koy doyadal moo tax euh, mu ne anil mar'i la tas'al was'al an xarinihi fa kullu xarinin bil muqarani yaxtadi ndax loolu moo tax sëriñ bi radiyallahu anhu diñu ko ay nee nit ku ne ka nga xam ne moom ngay àndal rek moom ngay yemal jikko loolu moo tax sëriñ bi radiyallahu anhu di ñu tànnloo ab àndandoo waaye ñi ni àndal ñu koy xam bu baax a baax di fexe ñi ni àndandoo ñu dëppoo ak ñoom jëmuwaay waaye ñu dëppoo ak ñoom ay jikko ngir ñu mën a dund ak ñoom mu ne wal taxfazu na ngeen wattu al aada a seen cër yi batnun mooy biir walisaanun ak ak ak làmmeñ farjun pay warij laani ak ñaari tànk waxaay naa ni ak ñaari bët yaddaani ñaari loxo wa baax daxaa nekk na seen ginnaaw us naa ni ñaari nopp man képp koo xam ne euh, man koo képp koo xam ne euh, laxaa raa wattu na laxaa ñeel leen anil maasi ci ay mooy kulliha mboole seen seen yantafia ne na dana jariñu nee na ngeen wattu seen cër yi juróom-ñaari cër yi nga xam ne moom la doomu adama bi am ne na na ngeen koy wattu juróom-ñaari cër yooyu mooy biir waaye mooy euh, làmmeñ mooy pey mooy ñaari tànk ak ñaari bët ak ñaari loxo ak ñaari nopp nee na képp koo xam ne moytu nga leen maanaam wattu nga leen ba ñu tàbbi ci ak mooy de nee na boo ko defee da nga jariñu juróom-ñaari cër yooyu nag boo demee ci Munawwir sëriñ bi radiyallahu anhu euh, cër bu ci ne jagleel na ko bunt boo xam ne la ñu ca war a jëf mu man ñoo jariñ moom la ci sëriñ bi di leeral waaye lañu ñu ca war a moytandiku te mu man ñoo sëriñ bi radiyallahu anhu leeral nañu ko ca euh, du jar ñu koy euh, baamu fi mu ne fal kullu képp min xaa ci ñoom cër yooyu jumlatan boole seen xat xaabalat jàkkaarloo na baaban ab bunt mina niiraani ca sawara fii maa xab sabat ci li nga xam ne sax na man yakun képp koo xam ne nekk nga xa di aji wattu leen yu fa yuk fa kon ñu fegal ko du xuula yawmil ana dugg bisub coono ba fi naarin ci sawara fi naari zil qahri ci sawaraas aji not ja aljalil aji màgg ja nee cër yooyu nga xam ne moom la limal day muy juróom-ñaari cëri doomu aadama yooyu dey cër bu ci ne am na bunt bu mu jàkkaar lool ci sawa sawara euh, képp koo xam ne nag mooy nga ci cër boobu bunt ba mu jàkkaar ci sawara rek bu ëllëgee yomal xiyaam foofa lañ koy tàbbal nee na képp koo xam ne wattu nga sa cër yooyu ba moyoo ci benn cër nee bu ëllëgee da nga mucc ca bis ba nga xam ne fala coona di méttee waaye bis ba nga xam ne fala la coona di bare euh, bis ba nga xam ne ca suñu borom subhanahu wa taala di atti jëfi jaam yi nee bu boobaa da nga mucc ngir lan ngir ñàkk a mooy gi nga xam ne moom nga ñàkk mooy ci cëri yi nga xam ne moom la la borom subhanahu wa taala euh, defal mu ne nag waman asa ku roy euh, ku ku ku waman asa ku mooy al mawla kilifa ga di suñu borom subhanahu wa taala bendu win ci ab cër abada ba faw fa baabuha buntam ba baabu azabihi mooy buntu mbugalam ba xadan ëllëg nee na képp koo xam ne nag mooy nga suñu borom bi subhanahu wa taala mi nga xam ne mooy borom màgg gi ci benn cër ci cër yi nga xam ne moom la la jox nee na buntam day ëllëg mooy bunt ba nga xam ne moom la suñu borom subhanahu wa taala préparé jagleel ko ko ngir mu nekk loo xam ne ca koy mbugale kon cër yooyu Euh, kenn ku ci ne war nga euh, xool cër yooyu waaye war nga koo sàmm war koo bàyyi xel euh, di ci fexe di ci saxal digale digle yi nga xam ne moom la suñu borom subhanahu wa taala digle waaye di fexe di ci moytandikoo jëf tere yi nga xam ne moom la suñu borom subhanahu wa taala tere ndax kenn ku ne ab sàmm nga te ëllëg suñu borom subhanahu wa taala dana la laaj la nga doon sàmm nga sëriñ bi ne wa kullukum képp kenn ci yéen yus alu def na ko laaj an raa yéen ci ak càmm raa goog càmmoon na ko kama ata ni ku mu dikke bi ci moom xadisu man waa xadisu aji xadis aji xanja te mooy yonente bi sallallahu alayhi wa sallam nee na képp ci yéen dina jàpp ne ab sàmm la te lim lan lay sàmm mooy ay cëram te cëram yooyu nga xam ne moom lay sàmm day ëllëg suñu borom bi subhanahu wa taala dana ko laaj cër yooyu naka la ko doon sàmmee cër yooyu naka la ko doon euh, sàmme wa kullukum yusalu an ra'in ra'a kama bihi ata hadisu man waa euh, kon euh, kenn ku ci ne war naa bàyyi cër yooyu xel waaye bàyyi ko bàyyi suñu borom bi subhanahu wa xel moom mi nga xam ne moo jox cër yi te digal ko mu mu topp ko ci waaye tere ko mu mooy ko ci yooyu yëpp war nañ ko ci bàyyi xel moom la xadis ba di wax ne kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi yonent bi saa sallam ci lay wax ne képp kenn ci yéen di ab sàmm la te ku nekk ci yéen ëllëg yawmal xiyaam danañ ko laaj euh, li nga xam ne moom la doon sàmm kon yàlla nañu yàlla euh, doole taxaw defal ñu ba ñu mën a sàmm suñu cër waaye mën a sàmm suñu diine euh, bi jaahi al abdul xadim aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa li wassalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh sëriñ bi doon sëkk tey ak ëllëg kon nag nañ ko fas yéene nañ ko fas yéene liggéey liggéey